leen ndaw si moom dana leen expliquer nan la scène bi demee bismillah waaw cas bi nii que dañu changé ngaa jël bi waaw man démb ba nekkee ci caravane bi boobaag léegi ñun ñoo ànd ak nekk ci caravane bi c'est bon c'est bon alxuraan fu dem macha allah fu ñu dem macha allah ñëpp génn dóor yee metti nag da ngeen may comprendre fi ne bu may wax sama wet yëpp ay metti waaw noonu la demee daal bi ñu demee ñu nekk suñ liggéey nekk suñu yoon caravane di caravane ba ñëw ak si dëkk bi nu mu tudd Darou Moussi bi ñu ñëwee Darou Moussi man ci laa dégganteeg sama yaay. dafa am xaritam mi ngi amee tan soxna Sylla ñu koy woowee soxna Sall waaw sama ko ñu nii la dëkk ñu ne ma koñu pharmacie bi bi ma ñëwee ba ci koñu pharmacie bi ma laajte ay xale yu góor laa fekk ñu taxaw ma ne leen xam ngeen ku ñuy wax tan soxna ne ma waa kër gee man dama dox deux mètres rek jékki-jékki benn xale bu góor ñëw rek dóoree ma ginnaaw keneen ñëw xëcc sama brada yi ma takkoon ñii jàpp ma di ma dóor mbooloo mu bari ñëw mbooloo mu takku ñu jàpp ma kii di dóor fii kii di dóor fii ci noonu moom jaañ fara ci la ñëw ànd ak ay garde corps bi mu ñëwee daal di ma laaj na ma yow soxna si xam nga li nga def dëli la yow waroo takk brada ah yor sa écharpe dugg ci koñ bi yow xanaa xamoo ni fii sama secteur la man ko kon politique loolu yëpp am na ci man sama tànta laay seet mu ne ma kuy sa tànta ma ne ko soxna soxna Sall mu ne ma soxna Sall ma na ko waaw mu ne xam nga bu ma la bàyyee kuy nan la rey ma ko waaw parce que commencé nañ ma dóor xaw ma lu xew noonu mu wane ginnaaw xale yi tourné waat ñëw di ma dóor bi may dóor muy wane ginnaaw man ko yow jaañ fara xam naa la bu baax te yow xam nga ne xam naa la parce que xam nga tam soxna Sall ci la tourné bi mu tourné eh, garde corps yi jël seen affaire yooyu ñuy maasaatee di dàq ful bi. ko fuddi dem après moom ci la ni nan jël seen oto oto bi ñu yoroon ñoom di caravane mu ne nan ko jël dugal ma ci yóbbu ma man suñu convent fan la ne ma wax leen ñu ci rond point bi mu ne nan ma yóbbu mais mu muy wax xale góor ne boo leen koy yóbbu boo leen demee ba ci yoon bi da ngeen di gaare oto bi jël beneen oto bu amul taf bi comme ça ngeen mun ko ci yóbbu pour ngeen bañ a am benn problème ci yoon bi léegi bu ma waxee loolu man ko problème am na ba pare parce que def ngeen ma li ngeen may def dóor ngeen ma gaañ ngeen ma lu metti lu ne nit bu ne def ngeen ma ko mu ne ma soxna si man ko ah mu ma yow yaa nu tooñ parce que yow yaa ñëw suñu koñ naan da seet nit takk say baraasa ah, man ko kon aw ma droit ñëw ci koñ bi seet nit ah, man damay laaj rek ba xam aw ma droit ñëw koñ bi seet nit te ki may seet yow xam nga ko waaw ah, nii daal la affaire bi demee garde corps jël ma indi ma ba suñu côté. bi ñu ñëwee ban ne ma fan mooy seen caravane ma ne ko mi ngi nii ñoom tamit ñu suñu parce que bëgguñu sol seen mbaxane yi bi ma ne ko solal sa mbaxane sol leen seen t-shirt ngeen dugg ñun yemuñoo ak la nekk te wane ngeen te loolu maam Paate mu ndax bi ma taxaw ak maam Paate gis nga ñii ñoo ma indi garde yi ñoom ñoo ma jàpp doon ma dóor fuñ bi jàpp ma di ma dóor ñoom tamit ñu ànd ci na ma ba seen osket bi dooga tourné jaañ fa ne yóbbu leen ko hôpital nga jógee waaw hôpital nag laa jógee nii dooga ñëw te hôpital laay delluwaat parce que instant li ma yëg sama yaram bëri na te mënu ma ko maa ngi tudd tey jéggalu bu kàddu yi jubee ngeen xam ne rek doomu aadama fi doon wax bu dënkee tamit ngeen xam ne doo kàddu doomu aadama léegi kii waaw sëñ Moustapha ah waaw baax na sëñ Moustapha kon kii daal waxte jóge ba fii ñu ànd ak moom pour mu lay gën a leere parce que témoin la te ñoo àndoon tamit karawaan depuis booba ak léegi waaw. waaw asalaamaaleykum mbooloo mi ñu ngi nuyu ñëpp di nuyu suñu mbokk internet yi ñuy seetaan à travers site internet yi fi teew yëpp di jiital ci nuyoo bi Serigne Bara Ndiaye di ko jaajëfal moom ak Serigne Mara Niass à travers caravane élite de patriotes liggéey bu am solo bi ñu def démb foog naa ni coow lii lépp looloo ko jur dama bëggoon tàmbali samay kàddu di jubal sunu sang bu tedd ba sëriñ Basiru Mbàkke Anta Ñaŋ ndax la xew ci dëkk ba xëy na bu xëyee suba buñ ko ko nettalee du doon lu koy neex ñu ngi koy tuub bu baax a baax waaye li ci am solo mooy moom xam na fi yëf jóge li xew du dara lu dul campagne bi mu démarré ba léegi kenn gisul waa benn Benno Bokk Yaakaar ci Darou Mouhty parce que xam nañ la fa nekk xam nañ ni askan wa nañ leen ginnaaw biñ demee ba campagne bi des juróom benn fan lañ dugg si ci dëkk bi ñii nag démb bi ñu fa ñëwee bien vrai que ni lu jiitu loolu gars yi doon nañ fa def liggéey bu am solo waaye ndaw ñi génn gi ñu génn dafa tiital waxuma ñu nekk commune bu Darou Mouhty waaye ñu nekk ci département Kébémer ñëpp da leen tiital te loolu bu ma ko tuddee tudd naa ki nga xamante ni mooy Modou Diagne Fada ndax mooy président conseil départemental ndax ñi laata ñuy accès ci dëkk ba dañoo jaar Kébémer jaar Sagata yëngu boobu ñu ngi ko doon suivre parce que caravane bi tax mu doy waar te lii ñuy wax lii yëpp mën ngeen ko justifier mooy influenceurs yi topp président Ousmane Sonko ñi ci gën a siiw ci biir caravane bii lañu nekk. loolu war ngeen doon suivre affaire yi ñoom bu taalee seen ay téléphone dëkk bu ñu jug waxuma waxuma la bu ñu day fees dell ñoom bi ñëwee ñu ngi leen tertu ca lycée ba ñu ànd ak ñoom ñëw ba ci pont bascule ñu taxaw. ma ni Serigne Bara ak Serigne Mara yéen a yéeg ci oto bi ak honorable député Daba Wañaan ak Thierno Mbaye bi nga xam ne mooy directeur de campagne bi ak Cheikhouna Bey xam nañ dëkk ñu nekk xam nañ ñu ñu dëkkal ñu ngi bëgg a sàmmonteeg war may dëkk bi dañoo bëgg bu ñu demee ñu def lu stratégique ci diir bu gàtt ñu jël kàddu yi wax li ñuy wax parce que fii mokk na rombox la Macky Sall teg waa dëkk ba mooy juróom-ñeenti doom yi mu jàpp tëj leen juróom-ñetti weer ak lu teg xëy suba bàyyi leen te tegu ko fenn Pape Mamadou Seck bi mu bàyyi démb jëloon ko force occulte mu def ci ak kaso bi ñetti at mu bàyyi ko démb ak Cheikh Omar Bamba Diop mi nga xamante ni lépp maam Thierno Birahim la mu tëj ko ay weeri weer yu dul jeex bàyyi ko te ñoom ñëpp gannaaw ba dañ leen defu leen dara loolu tax na waa Darou Mouhty gépp génn ci ñoom bi ñëwee di wax ci biir caravane bi maa ngi doon def appel sëriñ bi naan ko nañ gaawal kàddu yi ma ban damaa mujj mer sax ci biir bi génn parce que boobu woon nañ ma ni ma waa kër Mourou Diagne Fada yi ñu ngi dox bëgg a wut si ful bi parce que li ñu bëgg mooy tas ko bu ñu ko tasul lu am jàmm man ma génn ci biti ci laa tase soxna sa le toog xaw ma sax turam yàlla xam na ko mu ngi taxaw waa kër Modou Diagne Fada yi ma ne ko nañ dem parce que ñoom xam nañ ma bi ma ñëwee Madiop Diop mu ngi may seetaan ci moom laa jubal directement ma ne ko Madiop man de ful bi bugguma problème de parce que la nekk fee ëpp na 10 000 bis bu ñu xamee ne dañoo kidnappé seen benn doom bu ñu ñëwee fii coow li man naa bari tey la fi amoon 2007 bëgg mu amaat damaa bëgg su fekkee lii ñuy wax dëgg la ngeen dugg ci biir génn ndaw si bu ma ñëwee Madiop ne ma noo loolu gars yi xalaatuñu ko def sëñ Koso gànnaar ni ko vérifier leen bi ñu demee vérifier yam ci Mouhamed moo jiite sécurité moomu Diagne Fada bi moom dafa bañoon ne kenn nekku fi bi booy commencé di yëngal moo xam ne ñu yëngal ci la am na ku fi jàpp mais pour des raisons de sécurité dañu ko jël. mettre ko à l'abri pour bañ mu am ay jafe-jafe alors que tel n'est pas le cas loolu dañ ko ndekete ñoom moment boobu ñuy wax ak moom ñoom ñu ngi ko téye di dóor mooy soxna si mu ngi commencé di am possibilité mën a wax waaye lii lépp mënu ko woon di ko indil ay jafe di ko dóor ba benn instant ma ñëwaat waxaat ak ñoom Cheikh ñu ni ma dañ ko yóbbu kër soxna Sall ma ne soxna si ñëwoon ñu dem yéeguma ci oto damaa dox ñu dem ba ca kër ga fëgg waa kër gi fëgg ba sonn waa kër gi bañ tëddee kenn xamul ban heure la bi may dellusiwaat di ñëw bay tolluwaat ci garage bi lañ gis ñoom ñëw songu ful bi image yi nag moo wane boppam am na benn image buy circulé ngeen gis benn pick-up f cinquante buy génne ci benn mbedd boo xamante ni ci benn pharmacie la nekk pharmacie boobu moo jëm kër Modou Diagne Fada Fada dëkkul ci kaw tali bi daara mu si benn tali lam boo xamante ne booy dem tubaab fa ngay jaar ku mën a ñëw boo ñëwee foofu ngay jaar mooy RN1 bi bañoon coow moo tax bi ñu ñëwee sëriñ bi dane bu ñu fi nekk di def ay ñaari rencontre parce que ñaari point la ñu amoon duñu bëggoon def ci rond bi suñ paree demaat ci garage bi def ko ñu xam ne bu ñuy def ci garage bi day jege bu Mourou Diagne Fada te xam nañ ñoom pratique yi ñuy def ñu ne nañ jël benn bi ñu tàmbalee di def bi ñëwee ba tolloog ñoom ñoom dañoo joxe ay ordre ne somb leen oto bi ba oto seex Bara Ndiaye bi ñëw ñoom dañoo dañu ñëw rek dugg ci biir cortège maanaam dañ ko bëggoon fagaagal loolu mooy wax ju leen pick-up F150 bi jàll beneen Prado bi jàll ñëwaat dugg ci biir maam Thierno Mbaye mi nga xam ne moo nekkoon ñu jël ay briques dóor ci kaw oto bi mu wàcc li ñu yàqule ci ay oto kenn xamul nu mu toll ñi nga xamante ñoo ci blessé fii may wax ak yéen ñi may masaw mooy ñi ñu àndal ci caravane élite patriote mais ña nekk Daaru Muxti ñun ba léegi nelawaguñ parce que fa lañ nekk ba 4 heures du matin ci hôpital ba seex bi ne nañ toog ba 7 heures ñu toog pour xool ba xam est-ce que amul mooy suñu éléments yi xamante ni gisuñu leen 7 heures lañ fa départ ñëw fii nii Dakar li ñu fi àndi nag conférence de presse bokk na ci waaye bokk na ci ay nit ñoo xamante ni ñun ak ñoom ñoo ànd seen situation xaw nañu jaaxal te foofu ñëpp xam nañu hôpitaux yi centre de santé ba fa nekk ñu xeeti jàmbat ya ñu jàmbat jàpp nañu ñoom mënuñu koo saafara lii lépp nag du dara lu dul ay signe fin de fin de règne rek mooy xam nañ bu baax a baax ne mbir ma jeex na tàkk parce que daaru dafa am lu garaaw lu fa am koñ boo dugg di campagne ay xale yoo xam ne kenn coordonné wu leen ñooy coordonné seen bopp parce que seen maam dañu leen a naxa nax ba ñuy bëgg dee seen yaay ñu nax leen gën a judd am 18 ans màgg tiktok beeg. Facebook beeg Snap beeg conscientiser nañ askan wi ba ñëpp xam ne lépp leer na léegi koñ bu ñu dugg ñu yoxaloo leen loolu moo tax ñoom mënuñu supporter loolu ba ñu bëggoon faat bakkan sant nañ bu baax a baax nag parce que 2007 nii la demee woon digganteem ak maam Thierno Lo ñii ne maa gagné commune bi ñu ñoo gagné commune d'arrondissement am ñu xeex ca ba ñàkk ci doom ko doom joo nga xamante ne ba léegi nii may wax ak yéen amul ku dëkk Darou Mouhty ku mos a taxaw ci ab lay laaj naan la mbiru Modou loo ci xam France daal la mujjee jàll demul fenn te tey bu dara amaatoon bu bu ñu yàlla dimbiloon ba jot ci réew mi noonu lay mujje waaye Cheikh Bara wax na lu am solo nee na bii nii d'ici si de temps du mat sax une semaine yàlla dina def loxo yi nga xamante ci la réew mi nekk dana ci jóge tey it képp koo xamante du noonu nga injustice dinañ fexe ba loolu ñu jëm ko corriger li may terminer nag mooy ba ma juddoo sama ndey ak sama baay ba léegi ñi gën a irresponsable sama àdduna ñi ma njëkk a gis mooy juróom-ñaari gendarme yi ma fekk ci brigade gendarmerie bi vers 4 heures du matin juróom-ñaari gendarme y compris commandant de la gendarmerie biñ paree ñoom Seexuna bee ñëw man bi ñëpp demee dama ne man du ma dem parce que Modou ni ñu ko rayee woon scénario même scénario boobu moo ñëwaat ma ne ñoom song nañu ba suñu ay responsable yu bare bari dem nañ pour bañ coow ay des ñoo xamante ni ay 18 ans ñi ci seen mer mën nañoo song gars te ñee ay arme lañ yor man du ma fi jógee biñ taxawee di wax ba mu yàgg ma ne Seexuna Bey mi nga xam ne mooy président au niveau du département ak Thierno Mbaye mooy directeur de campagne nañ dem brigade gendarmerie ñu wax ak ñoom ñu ñëw ne dañuy mun nañu jóge leen fii yéen a nga nekkoon fële di campagne mobiliser seen ay nit di def seen affaire ba am fa problème dem leen rek la ji ci koo xamante ne moo war a sécurité doomu aadama yi ak lépp loo xam ne seen ay mbir la foofu naroon nañ faa jàppante ñoom waaye li li may tëje mooy di ko dolli mooy képp koo xam ne patriote nga tey ànd ak président Ousmane Sonko jëlal sa ay matuwaay bien vrai que ni Ousmane waxul na kenn xeexuloo waaye parce que période bii ñu toll jege nañ victoire bi te borom càq du xeex ak borom waaye ñii barke alxuraanu karim dañu naroon a rey Cheikh Bara Ndiaye rey Thierno Mbaye rey Cheikhouna Bèye parce que oto bu gaaree F150 nu mu amee doole nga forcé ko ci biir nit yor ay fetal yoo nga xamante ni gis nañ ko ay bal réel ci nekk ngay dóor ñëpp di ko gisal seen bopp image après ñi koy daw di leen ko jox di ngeen ko gis muy daw ci kaw loolu rey nit moom foofu la mën a yem donc kenn ku nekk na nga fagaru man ba ma doon dem la ma waxoon dama ni dëkk bi du ma fi du fi du fi yor benn yoon ngàndaay waaye bu ma jógee fii sama kër laa jàll jël samay bagage damay dellu war Daaru Muxti léegi nii barke alxuraan bu ñu bettaat te loolu la wax waa Sénégal gépp bu kenn arrière bu kenn reculer jamono ba mu gënee métti yéen ngi woon taxaw dëggal seen bopp ba askan wépp xam nañu yéen a nekk ci dëgg te xamoon nañu tôt ou tard la vérité finira par s'éclater te yàlla dimbali nañu ba ñoo nekk ci dëgg ji bu kenn daw bu kenn reculer Cheikh Bara mi ku bëgg jàmm parce que tax ma ne ko bëgg la jàmm la bi ñu nekkee ci biir sonorisation bi boobu mënoon nañoo wax directement ne ko waxal ne am na kuñ kidnappé kër Mamadou Diagne Fada boobu bu ful bi jugoon dem parce ñoom bi ñuy song dañu bàyyi ba booy jiitu dem bu ful bi duggoon ci foofu noonu xajuñu ci mbedd waxuma la kër Mamadou Diagne Fada mais moom daf ni lii ngeen di wax dimbali leen ma bu leen ko yëkkati ci kaw wax leen ko ci suuf ñu wër ko ndànk ba récupéré ko bu nga waxee ci kaw coow boobu fitna ñu ngi sant bu baax a baax di gërëm moor mi nga xamante ni suñu intégration biir mouvement bii di euh, élite patriote ci moom la jaare parce que gàcc giñ ci am mooy ci la bokk ci caravane bi mu Musi amoon urgence moo taxoon ñu dem fa ñoom ñu dem Louga dem Kébémer dem fépp fekk fa de très grands responsables amuñu kenn koo xamante ni indi leen ay jafe-jafe ñu ñëw ba Daaru Musi lii dalee leen fa ñu ngi leen di masa bu baax a baax Cheikh Bara di ñaan yàlla coono bi ngay daj ngir Sénégal coono bi ngay daj ngir ñu lay jokkar bi coono bi ngay daj ngir réew mi jag yàlla na bu sa coono réer ci barke Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasul ñu ngi ñëpp di gërëm ñëpp am mi